Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 de la télé Futur prison à perpétuité, la saisie de ses biens, c'est le réquisitoire du procureur contre Hissène Abré. L'ancien président tchadien est jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Encore en présumé djihadiste arrêté, Mustafa Diatta est soupçonné de vouloir recruter des candidats au djihadisme. Il a été interpellé à la mosquée mosquée Al-Iman après la prière du crépuscule. Crime passionnel ou vengeance, c'est le mobile retenu par la sûreté urbaine dans l'affaire du double meurtre survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier. Deux personnes ont été arrêtées. L'enquête se poursuit. L'interdiction formelle de la mendicité en bonne place dans le nouveau Code de l'enfant, ce document de référence visant à mieux protéger les enfants contre toute forme d'exploitation, d'abus, a été présenté ce matin. Et puis c'est parti pour le carême. À partir de ce mercredi décembre, les fidèles vont observer jours de privation et de prière. Voilà le sommaire de ce 20 Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce procès Hissène Abré, l'emprisonnement à perpétuité, la saisie de ses biens, c'est le réquisitoire du procureur contre l'ancien président. L'élément Léa n'est pas encore en place. Nous y reviendrons certainement dans... Euh, bon. avant la fin de ce journal. Et puis les associations de défense des droits de l'homme, RADO, SIDH, LSDH, appellent l'État du Sénégal à accorder une autorisation de sortie du territoire national à Bibo condamné dans l'affaire Karim Wad. L'homme doit se rendre en France pour recevoir des soins médicaux. La demande a été adressée au ministre de la Justice. Selon ces organisations, l'État sera tenu pour responsable des conséquences éventuelles d'un tel refus. Et puis nouvelle arrestation d'un présumé djihadiste interpellé hier, mardi. Mustapha Diatta est soupçonné de recruter des candidats au djihad. Depuis son arrestation a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule à la mosquée Al-Iman de Al-Iman de la Gueule Tapée. Nous y reviendrons également au cours de cette

Voilà, nous y reviendrons également. La machine qui fait des siennes deux personnes soupçonnées euh, d'avoir des liens avec la mort de l'enseignant Ibrahim Assi dans le quartier euh, Nyolofène sont placées sous mandat de dépôt. Il s'agit d'un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis euh, et un ouvrier agricole. Le dossier est désormais confié au deuxième cabinet du juge d'instruction. Plus de détails dans cette correspondance signée Ousseinou Diop et Habib Seck. Huit jours après la mort de l'enseignant Ibrahim Assi, dans le quartier de Ngelefen, la police a mis la main sur deux suspects. Arrêtés il y a quelques jours dans le cadre de l'enquête, un étudiant de l'UFR des lettres et sciences humaines de l'Université de Saint-Louis et un travailleur agricole sont placés sous mandat de dépôt. Ces deux personnes interpellées par la police ont passé les dernières heures avec la victime Ibrahim Assi. Le dossier est repose désormais dans les cimetières de Podor. Les deux personnes inculpées sont depuis plus de 24 heures à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Et puis nous vous parlions tout à l'heure euh, de l'arrestation euh, de ce euh, djihadiste sénégalais, présumé djihadiste. Son arrestation qui a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule. L'élément n'est toujours pas en place. Nous parlons de politique à présent avec Maître Bokartiam qui persiste et qui signe. Le porte-parole adjoint du PS maintient sa position malgré les critiques que Macky sera bel et bien candidat légitime du Parti socialiste. Il Le porte-parole adjoint du Parti socialiste, Moussa Bokar Thiam, ne varie pas dans ses déclarations. Selon ce dernier, le président Macky Sall doit être le candidat légitime du Parti socialiste. Nous avons un bilan du président Macky Ce bilan, je le réaffirme, nous, partageons, nous le partageons la responsabilité, nous partageons également la comptabilité. cela il faut être de bonne foi faites de la politique mais mais faut être de bonne foi et donc je ne vois pas comment le Parti socialiste aujourd'hui peut apprécier positivement ou bien juger positivement le euh, programme le bilan du président Macky Sall et venir euh, dire aux Sénégalais faire campagne avec les Sénégalais et dire autre chose, présenter un candidat et dire autre chose. Ça, c'est incohérent. Certains qui soupçonnent Ousmane Tanordien d'être derrière cette sortie, l'auteur botte en touche et dit assumer ses positions. Certains disent c'est la, main Tanordien, d'autres disent la main de Macky d'autres disent la main des gens qui, peut-être pas de Khalifa Sall. Tout le monde, les gens font de la, de la, peut-être de, de, en tout cas qui me connaît, connaît comme, me connaît comme étant quelqu'un d'assez indépendant, assez autonome, mes propos ne sont dictés par personne. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle ma position, c'est une position pour moi de principe. Maître Moussa Bokar Thiam contre soumettre l'initiative aux instances du parti. Ma position, et je suis formel sur cette position-là, euh, en harmonie avec euh, beaucoup de personnes euh, au sein du Parti Socialiste et même au-delà du Parti Socialiste parce qu'il y va de la crédibilité même du, du, du parti, à mon sens. Et j'invite euh, encore une fois hein, le secrétaire général du parti, Ousmane Tanordien, j'invite Khalifa Sall, tout le monde à la raison et à l'objectivité. il faut que le parti reste crédible à toutes les instances où les questions se poseront. Je défendrai ma position, que ça soit écouté ou pas. En tout cas, je défendrai cette position à, à laquelle je crois. Quid de la menace d'implosion du Parti socialiste à cause de cette déclaration le porte-parole adjoint soutient le contraire. Le Parti socialiste, il faut que c'est la première fois Hein, de, depuis que le parti a perdu le pouvoir, que le parti a soutenu un autre candidat et a géré avec ce candidat C'est la première fois le Parti socialiste de 2000 à 2012 n'a participé à aucun gouvernement du président Abdoulaye Wade. Donc nous sommes, devant une situation nouvelle, un fait nouveau qui appelle une position nouvelle. À quelques encablures de la présidentielle, les déclarations vont crescendo au Parti socialiste et chacun y va de son commentaire sur le futur candidat du PS

réconciliation entre les deux parties, finalement, les violons s'accordent. Après moult tracasseries, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John tranche en rendant à César ce qui lui appartient. C'est fini, tout est rentré à l'ordre, tout est arrivé à bon port. Donc nous allons commencer le travail en ce qui concerne la place de l'indépendance, bientôt qui va durer 11 mois. Mais concernant la place de l'obélisque, c'est un appui totalement technique. Et nous sommes même en cas de besoin de mettre la main, n'est-ce pas Donc nous sommes à la disposition de Jean Farbassa du, du renouveau urbain. Le maire de la Médina rappelle que les communes ont bel et bien existé avec tous ces monuments. Donc, ce n'est que justice rendue. Les compétences des collectivités locales, tout le monde sait que les places publiques, n'est-ce pas, sont, est une compétence, n'est-ce pas, réservée euh, aux collectivités locales. On ne peut pas interdire au ministère de travailler. Mais dans les textes, il est pour chaque investissement ou chaque projet que l'État puisse, en collaboration avec la culture locale, concevoir et investir pour ces zones. Mais le dialogue n'a pas été fait. Bamba Fall se réjouit de la décision prise par le Premier ministre en présence de toutes les parties concernées. Nous des fonctionnaires de l'État et nous travaillons pour l'État et pour les populations. Donc il n'y a pas de raison de divergence entre nous. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes censés œuvrer, travailler pour le Sénégal et pour ses populations, on n'a pas besoin de se quereller. Donc pour l'avenir, on demande à tous les partenaires, on demande à tous les acteurs qu'on privilège le dialogue, la concertation pour l'intérêt du Sénégal. Après la pluie, le beau temps pointe son nez. L'État sénégalais s'engage à appuyer le maire de Dakar dans ses travaux. En retour, le ministre du Renouveau urbain bénéficie de l'appui technique de Khalifa Sall concernant les travaux

qui seront réalisés dans le cadre du programme de touristique, euh, surtout par rapport à la route de, euh, de, de l'hydrobase. Il y aura un aménagement donc, paysager qui sera réalisé et, et, cela va nous amener en tout cas à dégrépir en réalité donc, les berges. les occupations irrégulières, les occupations anarchiques seront vraiment en tout cas euh, enrayées en quelque sorte pour permettre à ce, à que, à ce qu'on puisse réaliser ces travaux-là. Puisque euh, les berges, c'est l'espace réservé à tout le monde. C'est l'espace réservé à tout le monde. je pense que quand même, il faudrait que les populations comprennent que euh, nous ne travaillons pas dans une dynamique de les nuire, mais nous travaillons dans Je vous le disais euh, dans les titres, un nouveau code de l'enfant voit le jour, un document euh, unique, de référence pour mieux protéger les enfants de toute forme d'exploitation, d'abus entre autres. Le projet, portant, euh, le projet de loi portant code de l'enfant comprend l'installation de nouvelles institutions comme le Parlement des enfants. Il prévoit également la mise en place de sanctions contre la mendicité. Plus de détails, c'est avec Fatou et Diafarapa. Sept chapitres de 77 articles de l'enfant, une charte visant à garantir davantage la protection de l'enfant. Il s'agit premièrement de définir le concerné. La Convention des droits de l'enfant définit un enfant comme tout être humain âgé de 0 à 18 ans. Et là, je pense que c'est beaucoup plus clair. Le code de l'enfant apporte d'autres précisions du point de la protection de l'enfant. Par exemple, l'âge du mariage de jeune fille qui est à 16 et pour le garçon à 18 ans. C'est encore une forme de discrimination. Divers textes garantissent la protection de l'enfant, un arsenal juridique qui ne freine pas pour autant les formes d'abus constatées. La plus visible est l'exploitation des enfants par la mendicité et quotidiennement, sauvagement, mais également euh, les formes de maltraitance des enfants dans les familles, les châtiments corporels et beaucoup d'autres formes, n'est-ce pas, de nous voyons toujours ce qu'on appelle euh, les enfants des mères emprisonnées. C'est un vrai, c'est un problème. Le code prévoit et invite l'État à créer des centres d'accueil pour accueillir ces enfants-là, faire tout en sorte que ces enfants ne soient pas mis en prison en même temps que leur maman. Des mesures drastiques prévues euh, par le Code pour combattre le phénomène de la mendicité. aucune exception ne sera tolérée en ce qui concerne la mendicité des enfants. Elle sera interdite, la mendicité des enfants, sur tout le territoire de la République. Cependant, nous continuons la sensibilisation, nous l'avons toujours fait. 64 daras vont être construits cette année et avec les efforts de tout le monde que bientôt, quand même, nous allons mettre fin à la mendicité des enfants. L'atelier de partage euh, tenu dans ce sens est une invite à l'intention des femmes membres de la société civile, cela pour un plaidoyer. Les acteurs impliqués attendent avec impatience l'adoption du projet de loi euh, sur le code de l'enfant. Nous parlons éducation à présent avec l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal, inquiète du nombre de dossiers qui traînent dans les tiroirs du ministère des Finances. Un retard qui, selon l'UDEN, compromet l'avenir de certains enseignants. Un point de presse a été tenu ce matin, compte rendu avec Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Euh, Le constat est de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. En avril 2015, plus de 5000 dossiers étaient en attente dans les tiroirs du ministère des Finances. Pour ces syndicalistes, ce fait démontre les lenteurs administratives tant décriées par les syndicats de l'enseignement. Il y avait au moins 5000 dossiers qui étaient en souffrance. Et le rythme de prise en compte de ces dossiers-là, pour nous, est tel, tellement lent que nous avons demandé dans, justement dans cette plateforme qu'on rehausse le niveau de prise, de, euh, euh, comment dire, de prise en charge. Jusqu'ici, c'est 400 dossiers, a-t-on dit, par mois de mise en solde. Mais pour un rythme normal, ça devrait être 1000 dossiers par mois. L'UDEN fait de ce point sa principale bataille pour le chargé de l'administration. Ses retards dans la délivrance des documents freinent la carrière des enseignants. Le fonctionnaire, par exemple, euh, tous les deux ans, il avance d'un échelon à un autre. Et tous les quatre ans, il avance en grade. Maintenant, à partir du, du, du grade de principal, c'est tous les trois ans qu'il change d'échelon. Euh, Maintenant, il se trouve qu'il y en a qui sont restés plus d'une dizaine d'années sans avancer. Pas de leur faute, hein, mais par la faute de l'administration. Parce que les commissions qui sont chargées de connaître de, de ces avancements-là ne sont pas toujours convoquées à temps. Un préavis de grève est déjà en cours. Le syndicat de Awawad appelle le gouvernement à la négociation, une occasion de trouver des solutions relatives à la régularisation des enseignants en attente de leur dossier. Je vous l'annonçais en début de journal, le procès Hissène Abré, l'emprisonnement à perpétuité et la saisie de ses biens, Léa, c'est le réquisitoire du procureur contre l'ancien président cadien. Le procureur Mbakefal et ses collaborateurs étaient à l'honneur en cette deuxième phase de procès. Tour à tour, ils ont chargé l'ancien président tchadien afin de prouver sa culpabilité. Retour sur cette audience avec Al Hassanba. Le parquet n'a pas varié dans ses propos. Mbacké Fall, procureur général près les chambres africaines extraordinaires et ses collaborateurs ont essayé d'apporter des preuves durant toute une journée sur la culpabilité de Hissène Habré. Dans son réquisitoire, Mbacké Fall estime que l'ancien président du Tchad a désarticulé son pays durant son règne. L'acte fondamental signé en 1982 par Abré lui a octroyé des pouvoirs qui sont aujourd'hui à l'origine de tout ceci. Les quatre procureurs qui composent le parquet sont revenus sur les faits qui sont reprochés à Hissène Abré crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture et viol entre autres, avec des exemples bien précis, des actes directement la responsabilité de l'ancien président du Tchad, Mbaké Fall, qui a pris la parole en dernier lieu après son a requis la perpétuité contre Hissène Habré et la saisie de ses biens. Mais avant cela, le parquet a rendu hommage à Red Brody et à son équipe. Hissène Habré, lui, bien camouflé dans son turban blanc, est resté de marbre jusque-là. Et puis, nouvelle arrestation d'un présumé djihadiste interpellé hier, mardi. Mustafa Diatta est soupçonné de recruter des candidats au djihad. Son arrestation a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule à la mosquée Al-Iman de Gueltapé. Plus de détails dans ce récit signé Adi L'étau se resserre autour des djihadistes au Sénégal et la traque se poursuit. Moustapha Diatta, un présumé islamiste, a été alpagué à la gueule tapée à sa sortie de la mosquée Al-Iman après la prière du crépuscule ce mardi. Tout est parti d'une dénonciation d'une femme qui soupçonne Moustapha Diatta d'avoir enrôlé sa fille et l'envoyé en Syrie dans des filières djihadistes. Le mise en cause est marié, père d'un enfant Avant son arrestation, l'homme qui semble être passionné d'arts martiaux et de pêche gérait également un aquarium. Avant l'arrestation de Moustapha Diatta, d'autres présumés djihadistes ont été arrêtés aux parcelles Assainies et à Saint-Louis. Ils ont été précédés par ceux de Kaolack, tous soupçonnés de faire l'apologie du terrorisme. Installant ainsi la psychose chez les populations et provoquant le renforcement de la sécurité dans certains quartiers et établissements de Dakar. Aliatala, merci Léa. Nous sommes allés à la Gultapé où se trouve la mosquée d'Al-Iman où le présumé djihadiste avait l'habitude de prier. Oui, cher Tidiane est sur place. Les riverains ne se disent pas inquiets et vaquent à leurs occupations. D'après certains habitants rencontrés par la rédaction, seule la communauté Ibadou a l'habitude de prier dans cette mosquée. Suivons ce reportage. Il est signé Pape Faraning et Younous Diata. de mosquée le lieu de prière niché dans un rez-de-chaussée de l'immeuble en face canal 4 Gueule Tapée Moustapha Diatta le présumé djihadiste arrêté par les limiers est un habitué de cette mosquée Al Iman une mosquée exclusivement fréquentée par des Ibadou Rahman dans ce quartier de Fan Gueule Tapée malgré cette information les riverains ne sont nullement ébranlés. Vraiment, ça ne nous empêche pas de vivre. Nous vaquons à nos occupations sur une mosquée où prient des Ibadur Moi, je prie dans l'autre mosquée. Non, non, absolument rien. du tout. Nous sommes entre les mains de Dieu. J'ai pas peur des djihadistes. Euh, yeggale li may kon looy tiit. de cette occasion pour condamner les actes des djihadistes. Pour eux, cela n'est pas conforme aux préceptes de l'islam. Je maîtrise la charia et autres connaissances de l'islam. Ces actes sont condamnés par la religion musulmane, c'est de l'imagination. Lu gën a bari, c'est des imaginations. Léegi laa ko xam, maa ngi suma téeméeraat meeran la. J'ai vécu plus de 100 ans ici. C'est la première fois que j'entends ce mot djihadiste. Autrefois, les lieux de culte servent uniquement pour la prière et la dévotion, mais pas pour former des djihadistes. On peut passer devant la mosquée Al-Iman sans la remarquer. Même si une personne a été arrêtée, c'est comme si rien ne s'était passé dans ce quartier où les gens vaquent normalement à leurs occupations. Et puis du nouveau euh, dans l'affaire du double meurtre survenu dans la nuit de la rue Carnot. Ce mercredi, deux Sénégalais ont été La sûreté urbaine retient pour la thèse euh, du crime passionnel ou la Le commissaire Elage Richard Dramé faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de et sauvagement poignardé avec plusieurs coups qui étaient visibles dans un même salon. Donc l'enquête ouverte a permis ce jour à l'interpellation d'une personne présumée meurtrier et qui a reconnu les faits. Donc euh, il a été entendu sur procès verbal. Ils ont à Dakar. Ils ont été arrêtés à Dakar. et très tôt euh, l'un hier soir vers les coups de 20 heures, l'autre ce matin. Mais le principal auteur, c'est-à-dire l'auteur, il est sénégalais, même l'autre aussi est sénégalais. C'est tous des sénégalais. Pour le mobile, on peut l'enquête se poursuit, mais on peut noter que <coughs> euh, c'est un crime qui pourrait être passionnel. Voilà, donc euh, à, à connotation peut-être de vengeance aussi. L'enquête se poursuit. La menace terroriste, un phénomène qui inquiète les professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Cependant, le chargé des relations publiques du groupe Javago Afrique de l'Ouest félicite le renforcement des mesures de sécurité dans les hôtels du pays. Écoutons Ismaël Cabral Campbell. Ses propos sont recueillis par Chertidiane Dion et Tierno Laurent Aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, des pays comme la France sont continuellement en alerte. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui les touristes de visiter la Tour Eiffel ou d'aller visiter euh, euh, la Statue de la Liberté et autres. Donc nous aussi, nous devons pouvoir composer avec cette menace et aller de l'avant. Nous ne devons pas baisser les bras et nous ne devons pas aujourd'hui euh, dire que voilà, euh, il y a une menace touriste qui est là et nous, devons attendre que ça se passe ou nous devons est réelle, peut-être, je ne saurais le dire, mais en tout cas, nous devons composer avec et nous devons travailler pour que notre pays soit de plus en plus apprécié et visité. si ce sont des mesures qui visent à rassurer les populations, qui visent à rassurer les gens qui fréquentent ces hôtels, c'est une bonne chose. Je ne vois pas du mal. Tant qu'on ne se reproche rien, on ne devrait pas pouvoir avoir de mal. Parce que ces gens sont là pour notre sécurité, sont, ces gens sont là pour que nous Nous parlons toujours du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en net recul selon le président d'Alfort, Béranger euh, Pour lui, cette régression s'explique par plusieurs raisons, les plus en vue, les appartements meublés et les auberges clandestins. Pape Béranger au micro de Chertigan Dion. marche très bien au Sénégal, je dirais Parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques, en de l'ANFD, l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, on avait dit qu'il y avait 14 000 emplois directs et 21 000 emplois directs. Et un secteur qui générait 352 milliards par an, rien que les taxes aéroportières et les nuitées d'hôtel. À un diagnostic et vous allez voir qu'il y a au moins une baisse de 30 Maghreb, il y a des pays qu'on Regarde, nous avons 741 réceptifs hôteliers à Dakar et nous avons deux pôles porteurs. Nous avons Dakar et Sali. Nous à Dakar et 169 réceptifs à, à Tout le reste est mort sur 14 au Sénégal. Nous avons la paix. Mais la paix prime surtout. Pourquoi la destination ne marche pas Parce que l'agent national de la promotion touristique ne met pas la volonté, ne manifeste pas une volonté de faire marcher ce secteur-là. Ou bien, bon, on a mis des gens qui ne sont pas compétents Je vous le disais également en sommaire, c'est parti pour 40 jours de carême avec le mercredi des cendres. Le chiffre Léa, tout en symbole pour les chrétiens. c'est le nombre d'années qu'a passé le peuple d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, selon l'abbé Théodore Mendy, ces jours de carême doivent être consacrés à la prière, au partage et au recueillement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pierre da Silva et Dembandao. Le carême Et pour nous chrétiens, une période privilégiée de 40 jours de jeûne, d'abstinence et de conversion. Tout jeune au catéchisme. L'on nous apprenait que se convertir, cela veut dire changé de cœur. changer de vie changer de manière d'être changer de manière d'agir pour mieux vivre en conformité avec la volonté de Dieu mon frère ma sœur tout au long de sa carrière l'Église t'interpelle elle interpelle ta conscience ta vie ton agir est ton être. Elle t'interpelle et t'invite à la conversion.

c'est euh, national depuis euh, qu'on a commencé donc euh, tous les courses on l'a on l'a rapporté et aussi c'est ça qu'on qu'on voulait. Il y a une bonne qualité, vous avez vu, ils sont bien battus. Bon, ils sont bien battus. Maintenant, j'attends la moyenne. Parce que ce qui compte pour moi, c'est-à-dire qu'il y ait du spectacle. Parce que quand on parle de course kermesse, de course critérium, il faudrait que les coureurs quand même se battent sur le circuit pour quand même euh, contenter un peu le public. Parce que si le public s'est déplacé en masse, je pense qu'il faut, les coureurs se sont bien livrés, ils sont bien battus et c'est l'essentiel. Euh, il y a d'autres Euh, parce qu'ils sont en fait la préparation du Tour du mois d'avril au Sénégal qui commence euh, le 22 avril et qui va jours. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, cher Tidia. Voilà, le tout en image. Mais en attendant, on vous laisse avec Shérif